kul jinaa ne yow taaliba bi boo bëggee ju jubóog sa borom jege ko na ngay sax di jàng alxuraan fa man araada al xurba min mawlaahu fal yaqra al quraana laa kon ñun ñun waa kër sëñ Tuubaa alxuraan suñu yëf la ndax alxuraan alali sëñ la sëñ Tuubaa moo ne awrastanil kitaaba malaktanil kitaaba wax na sax ni malakanil quraana tam lii kan yaduum bi ànd nii xillun wa aybun wa xadiima suñu borom moom loo na ma alxuraan moom ko sax sax dégguma tubaab waaye mooy mooy permanent mooy lu sax mooy moom goo xam ne nii moom gu sax la waaw nee na moom moom googu la ko suñu boroom moom loo moo tax mu am ci alxuraan jagle goo xam ne kenn mësu ko ci am sëñ bi mësu xëy woote benn bis joxe këyit sot luy xalima ñu bindal ko kaamil bi jébbal ko ko te jant sawul loolu moom képp ko mësa am am barab yoo xam ne itam dañ fay jàng alxuraan suba bëccëg ngoon te boobaag léegi ëpp na téeméeri ndax def nañ ko gànnaar ceen jolof njaareem ba fi may wax yow dëkkut sëñ Mbàkke Madina sëñ Abdou Lahad gane ji ne ko ceel jolof mu ne ko sëñ sëñ sëñ Abdou Lahad de ko sëñ Mbàkke mu ne ko Mbàkke mu ne ko néeg bii de sa maam jàng na fi junniy kaamil ci làmmiñu boppam te bokkut ak li waa daari kaamil doon jàng sëñ Tuubaa bu mu saa yëkkati lëf di ko joxe ni nañ ma ko joxal sama waa kër ñi jublu ci doomam wi jublu ci ña ca waa barsax ñi ña ca wa waa daari kaamil la si lii waa kër sëñ Tuubaa di mokkal alxuraan ci àddina amul fen niñ koy naafilaa ci weeru koor wi amul fen niñ koy binde mbindum loxo te duñ ko gestu te dañ te dañ ko te duñ ko gestu duñ ko xool amul fenn kon nag loolu gi mu wax ni suñu borom moom loo na ma alxuraan donn loo na ma may na ma lu am firnde la sëñ Abdou na jox nañ ko kaamil te du nangoo dara ci loxoom lu alxuraan nee na bi ñu ko joxee kaamil ba sëñ bi laat nee na xam na turu borom kaamil ba xam dëkk ba mu dëkk nee na bi mu ko joxee sëñ bi nangoo ko ñaari loxo teg ci dënn bi fóon ko noonu wàkkat sëñ Tuubaa yëpp def bu ñu leen joxee alxuraan mu ne ko sa kaamil bi da wow na lool mbind mi rafet na lool waaye fa farixan kasatum ja ca sootul baqarati jey moom nga fàtte sàdda sëñ bi laat da ko waat nii wallaahi asim bañ ko ubbee noonu la waaye bu ko waatu doon ñu gëm ko kon maa ngi soññi sama bopp ci alxuraan ci soññ ñëpp rawatina ndaw ñi te daara jii moom waxee ko fi sax wax ju yàqu la waaye soññee wa dakir fa inna zikraa tanfa'ul mu'miniin suñu borom dana yonent bi suñu borom dani ko den fàttalee ndax fàttalee dana jariñ aji gëm njaboot gi nañ leen gaawtu loolu la sëñ bi loolu la sëñ bi liggéey moo waral moo waral lii nañ gaawtu ci njaboot gi jàngal leen alxuraan mu jiitu ci seen dënn yi lu bon bon ñu man saar yu ñuy jullee xam la war a def te sëñ Tuubaa wax na ci Masaalikul Jinaan ne waaye su maa yu bas bisu sabiilu fii maktabati njëktub loolu aliyu wa walidayhi wala man yuallimu baraatan min naari fal tax na ma sëñ Tuubaa nee na boo amee sa doom yóbbu ko ca daayira ba ca Basiiru Sise mu jël alluwa teg ci luppam ni ko baa sëñ Tuubaa nee na yow moom mu wax baa muy Basiiru Sise ak xale bi mu ko wax ak ndey xale bi ak bàyyi xale bi baraatan min naari fal na mu musal nañ leen ci sawara loolu sëñ Tuubaa ko wax ci masaalikul jinaan loolu rek jar na indi xale yi ñuy jàng alxuraan mag ñi itam koo xam ni kii safarata dese na laa leer nañ koy laaj ñi ko xam maa sëñ Bachiru gaa ngi fi ku ñëw laaj masala ñu wax la te sëriñ bi nee na man kaana jaahilan bi fardihi walam yasal fa nafsuhu abada wa koo xam ni kii réer nga safarata ci mu kalaf te laajoo ko ba xam ko alak nga sa bopp tooñ nga yàlla te alxuraan nee na nu fasalu ahla zikri in kuntum laa taalamuuna kon nañ soxlawoo woo xam-xam boole ko ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi bu noppee ñu sellal jëfin wi ndax sëriñ bi sell gi rek moo ko ci am moo ko ci itteel sell gi rek moo ko ci itteel Seex Ibra Faal mi ñuy wax li coow li bari bari ñetti at la murit wàcc kero ba sëñ Baara ganee àddina ca Tuubaa la ko sëñ bi woo moom sëñ Ibra Saar sëñ Masamba Diop sëñ Daam Abdourahmane Lo ni leen li ngeen doon wut ci sama borom gan gi ñëw indaale na ko Cheikh Mouhamadou Lamine moomu nag am caatam mooy waajuru sëñ bi Cheikh Ibrahima Fall dem Ndar sëñ Masamba dem Daaru Saam sëñ Xisab Saar sëñ Daam Abdourahmaan Lo moom ja sëriñ bi laaj ko li tax sama room yi dem te yow demoo mun ko yow de sëriñ bi daa mel la ma la waxoon ci Mbàkke Kajoor da nga ko déggut dama laa waxoon ne la jébbal naa la sama bopp àddina ak alaaxira àddina jiinu nekk jeexagut waxuma la alaxira jéenu jëm nga bëgg nu tàggoo sëñ bi ne ko Abdourahmane boo waxoon ne ne danga may jaaxal ndax yow maa la moom xam nga ni ma la moomee mu ne ko déedéet mu ne ko keroog ba sunu borom ne alastu bi rabbikum ruux sallallahu alayhi wa sallam ne xaalu balaa mu def ko muy ngën ji mbindéef mu tànn ba mu tànnee ba nopp sallallahu alayhi wa sallam daf ma jañ ma tànn la ma tànn ca tànn itam wax moo tax ngeen mel seen melokaan yi tànn du sallallahu alayhi wa sallam keroog may tànn nag ba laal sa roo ci la ma sama borom waxe ne ma kooku dooñ suul la bu juddi faatu ma jox la samay at ngir xam ne man mi yàlla liggéeyloo dinaa ami at jox la samay at ngir nga ànd ak man liggéey bi waaye nag dinaa la soppil ab liggéey digal ko muy jàngal alxuraan moo tax sëñ Moussa Ka ne lakkum mina diini lañ àppoon dundam ga Cheikh Ba ma jox na ko fa fam na ko jox Abdourahmana mooy juróom-ñeent fukki at yooyu ma dund ñaari ràkkal la daan ju la bi kon alxuraan mooy alali sëñ Tuubaa nañ jàng bu baax su suñuy farata boole ko ci liggéeyu sëñ bi xasaayid sëñ Tuubaa yi ndaw yëpp daw nañ jëm ci jàng ngeen fi njàng mu neex moo xam ne nii xolub sëñ bi sedd na ci mboolem ko fi teew sab xol tooy na ci xasaayid yi nag sëñ Tuubaa da cee wax wenn bayit woo xam ne doy na sëkk ab soññee ci dayoo bu mu am ci sëriñ bi sëriñ bi dani wafimtidaahika haahuna waxadan fawsan waribhan waridwaanan yu xaribu nii sama tagg yii ma tagg sallallahu alayhi wa sallam ci laa arjo googu doo ko firee yaakaar ci laa ci laa ci laa amee kóolute ci laa amee yaakaar doo ko doo ko firee yaakaar ci laa amee fii ci àddina ak ëllëg jëñu jëm fawsan ak texe wari pan ak tonowu mooy bénéfice wari duwaan ak ngërëmul suñu borom yu xarit bu ni ak gën a jege yàlla ñëpp ci xasaayid yi ci la amee loolu kon xasaayid yi mooy alali sëriñ Tuubaa noonu ko sëñ Moussa Sall yi waxee nee na doomi sëñ yi day xam nañ seen waajur wu jigéen xasaayid yi nag sëriñ bi mooy seen ndey mooy seen baay kon lu ñu gën a man ci waggar ko ak sellal ko doyut bu ñuy jàng nañuy teewlu njàng mi te ñuy jàng araf yi nañuy xam araf yi bu wér ndax sëriñ Tuubaa nee na kuy jàng te neexoo baat sax nañ la teral noppiloo la te bul xam ne dañ laa bëgg a noppiloo daana woo sëñ Massa ma ni ko baat boobu di riir te te neexut nañ fexe ba mu génn kuréel gi te bu mer nga xam ne nañ ko weddi ko sëñ bi leen ñëwal jëfandiku wala nag noonu lañu daan kon lu ñu gën a mën a selle la njàng bi doyut sëñ bi nag bi ñuy jàng léegi seen mawaahib bi la wax ne njàng mi kiimaane na lool sëñ Basiru nee na moo ci joxe ndigal kon li ma dul deñ di ko nettali mooy la sëñ saa Saali waxoon ni man de yoon yi su ma demee ba ciy bëgg tiit gis gone yi ni ñuy xalaf xalafee ci sëñ bi sama xel dal waaw kon mi ngoog sëriñ bi nee na répétition yi muy muy wàccaay wi muy kuréel yi wàcc sëñ bi nee na moo yéen a koy ànd kon seen kuréel gi alhamdulilah rabbil alamin ñu ko am bëriwut ñu ko am bëriwut te Seex Ibra Faal bu na day jàng xasiida ba mu yàgg sëñ bi ne ko foo déggee boobu daaj mu ne ko ci mag mu baax laa ko déggee sëñ bi lay jubloo wax sëñ bi àgg suuf ni ko mag moomu dem ci malaayika yi lañ ko la ko déggee <laughs> waaw sëñ Basiiru nee na gi daa ji ñuy jàng yépp sëñ bay leen koy jox seen seen bis bi ak seen njàng mi dafa am seede sëñ ma sàmba mooy waajur mooy waajuru sëñ bi toog moom dafa amoon xaas ci xasaay di sëñ Tuubaa nee na xasaay di ñoo sàkku sëñ ma sàmba di leen maas siiw na ci kuréel yi sëñ sàmba kon seen bis bi yéen dafa am dafa am dafa am yu bari yu ci daje ngeen am ci tawféex kon na ngeen jàpp liggéey bi bu baax sëñ bi de sant na leen sant ngeen sëñ bi léegi sëñ Bass wax na ma waaye yéen sëñ bi sant leen waaye gën gën leen a góorgóorlu takkaat seen ndig te xam ne ñiy liggéeyal sëñ Touba sëñ Touba ñaanal na leen te ñaanu ko sëñ Touba sunu borom nangu na ko ba noppi mu doog ko ñaan. wax waqdi awaaija lasina daamu fii xidmati wahab lahum maaraamu sunu borom fajal aajo yi ñi may liggéeyal te defal leen seen càkkutéef inna lesina saarahoo li xidmati falahumu diyaare wastal janati yow sunu boroom ñi gaaw ci di ma liggéeyal dëkkal leen ci digg àjjana wa kullu man xadamani aw saara fa najjihi wax fir lahu aw saara koo xam ne ki buur nga di ma liggéeyal sunu borom musal ko te jégal ko wa kullu man ahabani aw maala ilaya farsuqoon hada aw maala koo xam ni kii jàng nga jëm ci man yow sunu boroom defal ko ak njub te defal ko alal ixfir bi jaahil Moustapha li kulli man ahabani li wax ci maaliki saman yow sunu borom jéggalal képp ku ma sopp waaw kon nag loolu doy na sëkk ci takkaat sa laxasaay ci liggéey bi bi te sëñ Abdou Xaadir daal wax ni sëñ Tuubaa laa daan liggéeyal ba samay moroom raw ma day nopp dégg ko bët gisiku te Cheikh Ibrahima mii ñuy wax ñëw na njaareem ci mujj sëñ bi xéewal yi bari lool mu ñëw bi mu ñëwee boof ñu yëgle ko sëñ bi ne bisimilah bi mu ñëwee bu noppi daane waa Mbàkke ndax deseeti nañ fi dara sëñ bi di waxaat keneen moom yàgg sëñ bi ne ko Ibra Fall looy wax mu ne ko ndax deseeti nañ fi dara xéewal yi daa bari lool de defe na ni sëñ bi da koo fay ci àddina sëñ bi ne ko Ibra Fall la ma waxoon ak yow mbàkk ci Mbàkke Kajoor ba tey maa nga ci jógaguma ci dama ci mbaar nga ne ma soxlawoo ci tool yi fap fap ko war pay gi ëllëg laa jëm ak yéen adduna taxumaa jóg sëñ Basiru ci mujj dem na ci Seex Ibra di ko laaj ni ko xéewal yu bari yi nga am ak nii nga mel faal lu ko waral te ginnaaw sëñ bi nee nga sa sa digg moom ëllëg la mu ne ko ba ma sukkee ca kanamam sama ñaari bëti woomee suuf soosee rek barkeb suuf soo rek moo ma wër nii ci àddina waaye sama liggéey laaluguma ko kon liggéeyal sëñ Tuubaa mi ngi noonu nañ góorgóorlu te sëñ mënu saakat daana wax ni waaye jub rek ma doy te bu ma si bu ma jurutoon it ma am la Ibra Faal am takkal naa koy néeg bindal na ko fanweeri kaamil ak juróom-ñett moom sëñ Moussa boo demee ci kaamil kenn ëpp lu ma cee kaamil boo demee ci gétt ga ab jox naa koy fas takkal naa koy nekk bindal naa koy kaamil addiyee junni la mujj jox sañ Tuubaa ci seen hijjati sëñ bi dem ci muharram kon bu amoon kuy bañ a liggéeyal sëñ Tuubaa ñooñu la te ñoom ñëpp a takku liggéeyal sëñ liggéey bu rëy rëy maam Thierno mbay na mbay moo xam ne ni fukki ñaar fukki junni la ak juróom-ñett mu jëbbal ko sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ñaar fukki junni juróom ñaar fukki junni ñett yooyu soxna Awa Sarr la ko dénk soxna Awa Sarr ci kër gu mag gi la nekkoon ku sëñ bi wóor woon la soxna Awa Sarr moom sëñ bi daa sëlmal tàkkusaan yónnee jafura woolu ko ba mu ñëw sëñ bi ni ko anan ndénkaan la ndénkaan loolu mbayu maam Thierno la woon soxna Awa Sarr daal di tekki la fu kumbaam jox sëñ Tuubaa xaalis ba sëñ tubaa daal di ne bismillaahi tàbbal ko ci jafuru ja ca la diglee ni ku ma yaakaar na joxe nittu ak juróom-ñett loolu mooy bu jumaayu njaareem ci lañ tabaxee juróom jumaayu njaareem xaalis bu bari xaalis boobu sëñ bi bi muy diglee jumaayu tubaa la wax ni lu ngeen soxlaati wala lu ngeen defanti na ngeen ko jaar fii liggéey seenu alal ba ba mu lew ngeen def ko ci yoon yàlla loolu la murit xam bi ginnaaw bañ sa li ñu sëñ bi digal sax ci ndigal yi suñu borom bi wattandiku tere yi waaye nag tënku ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi sëñ bi nag li mu wax léegi ci ñaan moom nañu ñaanal moom nee na ngëneeli ñaan dëgg la dégg nañ ko waaye ñi ngi sàkku maa ngi koy wax tur mbooloo mépp mu ñaanal la fi ma koy tegit mooy waajuram mooy caatum sëñ Baara te sëñ Baara sëñ Tuubaa du ko bind bataaxal boo xam ne nii man gisaguma bataaxal bu mel noonu bu ko sëñ bind sama su ma ëlwa na guddut waaye dégg naa ñu ma ëpp xam-xam fuuf wax loolu sëñ Tuubaa dafa wax ne asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu fahalam bi annaka yaa Muhammadu Laminu sëñ Baara lay waxal yow na nga xam yow xamal yow Muhammadu Lamin satnaalu maqaaman am nga maqaamu mu kawe xalsat nga am maqaamu mu kawe yaxbitu ko fii yàq fitu ko yàq bitu ko fii lu am saalik te mboolem sa morom yi dinañ la ñeewee ci maqaama jooju kon wa anna kulla man kaana mahaka jamihan képp koo xam ne ànd na ak yow mboolem ñi ànd ak yow laa yaraw na duñ gis illa ma yasuruhum lu lañ bëgg la jàpp na ci ñoom wayen fa huum te di leen jariñ fi duniyaa ci àddina wala axirat ak alaxira waxum yow sëñ baara waxum ñoom ñooñu ànd ak yow yaddu xoloona dinañ tàbbi aljannata ajjana bi xayri xisaabin ci dul réglé ci dul isaab xam nga dégg loolu yow sëñ baara na nga xam ne danga am maqaam mu rëy moo xam ni mbooleem say moroom dañ la ko ñeeyee kon na xam ne yow moomu yow sëñ ak ñi ànd yow du ñu gis lu luy jàpp ne ci ñoom te di leen jariñ fi dunya wal axirat ci àdduna ak alaxira yemul foofu mu ni waaye ñoom ñi ànd ak yow yaddu xurnaal janat bi xëy na isaabin danañ tàbbi àjjana te duñ te kenn du leen isaab isaab mooy régler mooy xool vérifier la dinañ tàbbi àjjana te kenn du leen xool waaye la ci sëñ bi teg moo yéeme wala taskuk fii kaw ni haza minallaahi wa rasulihi wa min nii bul sikk sàkk ni leetar bii ci yàlla la jóge jaar ci rasulullaahi ñu jox ma ko ma teg ko ci sa loxo wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu to baaraay Madu Lamin Aziz sama may sunu mbër ba muri to Tuuba doy naanu aji dexe Tuuba lay jëm ba muri to Tuuba doy naanu aji dexe Tuuba lay jëm ba mu ni te dunu dëggulu yu jëm kaw dunu dëggulu yu xuus otoraayu tuuba jëm ba masida taayif gaca makka moom lanu yenu init mooy tey bëgg seex Fatma mu di to tuuba doy naanu aji dexe tuuba lay jëm baari addi sëriñ bara waaw kay sëñ Biraan ñu ngi nuyu mbooloo mi fi teew ñépp di ñaan kenn ku nekk wax ci aw làmmiñam jërëjëf sëriñ tubaa gaañe bu nu goree ñun ñii di ay ndaw sunu sang bii toog Cheikh Abdoul Aziz war na noo wax jërëjëf sëñ Touba jëfaat sëriñ tubaa Cheikh Mountakha yàlla na fi yàgg te Mbàkke ñu ngi lay nuyu bu baax dama mënatut a téye sama bopp moo tax rek ma mujj daal di këf yëf yi ne Cheikh Abdoul Aziz mii toog itali lañu daje dajee Reggio Emilia mu fay defal mbooloo mi jataay bii muy def la maamam ne woon rekk ca la ne sëñ mii bi ma ko sëñ Saaliw Sekk jàngkat di tudd ci suba xaw ma ne woon jëmmam ji la wallaay lazim sëñ Biraan mii itam sëriñ benn boole bi mu nu waxee bis bi nuy déggante def na ci yitte joo xam ni Serigne tubaa rek la nu koy seedeel yàlla na sëriñ bi kàttanal la ak mboolem ñi nga àndal. waaye mbooloo mi Cheikh Abdou Aziz mii toog kenn ku nekk xam na ni Serigne Baaraay wa maanaam Serigne Baaraay maamam waajuram nag sëriñ Xaadim awo Ba mooy caatum Cheikh Mouhamadul Amin da ngaa wax léegi li sëriñ tubaa wax Cheikh Mouhamadul Amin waaye Cheikh Mouhamadul Amin daa am lu mu wax Serigne Touba boo demee ci Mirawirul Bunyaan benn bayit rek laa ci jël busraaki yaa ardi tuuba yow ma nil taala kullal bilaadi bi hësa sayqi kulla maanaam mbooleem suufi àdduna bépp suufus tuuba mi ngi tiitaru ci seen kaw ngir sang bii fi tëdd te amul feneen mbooloo mi barke Cheikh Ahmadul Khadim sëñ Touba amul feneen fudul Touba gis nga sëñ Touba bu ko pari gi amoon bala nu koo siyaare dana nu def ni ñuy def wol di rang di dagg bee ngir bëgg koo teg ba te duñ àgg ci moom kon bu nu amee lu nu xamut nanu ko fonk te téye ko maami sang bii toog sëñ Ibrahima Diop Masara yu dani ko waxuma sëñ Touba waxuma sëñ Fallou waxuma sëñ Modou Moustapha waxut kenn moom sëñ ma sàmba rek la tànn wenn bayit laa ciy jël moom itam dañuy faaxal afaa dii la ahlul di wal karami Massamba Mbàkke kasiirul ilmi wal xekami maanaam borom ngëneel yi ngeen wax yéen bàyyi leen sëñ Touba nee sëñ ma Massamba mii di caatum sëñ Mor Anta Sali tiim na leen gaa yi caat daa garaaw de moo tax sa waajur kenn du moom sëñ Xaadim Awa Ba xoola sëñ Murtala am sëñ Tubaa wenn bayit laa ciy jël moom it làkka mata bii bi sukuurin waridaa yaa waasi wa wasaatali bi Murtada loolu la ko sëñ Tubaa wax kon Mbàkke yàlla na yàlla yàggal taxawaay bi boo xoolee jataay bi nii mu demee man maa ngi amoon vol Milan trois heures bi ma fi agsi daanaka 6 heures jot na sama mbokk yii nga xam ne ñoo bokk ne Italie sëñ laay Diané ñoom sëñ Maam Cheikh jóge ba Bergamo di jàng xasida loolu danoo sagal ndax sëriñ bi dañu woon inni uxaati bu nasaara tura fii ardihim li malikil mutara mbooleem ku fi teew na nga xam ni bayit wa ca biir nga bokk ndax sëñ tubaa ci boppam bi muy dox ci bëxru maayomba di takk ndiggam di yëkkati xasida ak muwahibu boo xoolee gars yi sam su sumuusi rë su ra'isi waaye riimal loolu xëyrul xayrul anisi lil awliyaa yi mu ngoog kon nag damay tënk rek ndax waxtu bi daa xat waaye sëñ bi dama am ci moom yéene ndax keroog ba ma fekkee damaa waxtaan ba noppi mu ne ma yow de mën ngaa waxtaan waxtaanal moo tax Mbàkke dama fas yéene waxtaane sëñ tubaab ba faatu waaye nag dama bokk ci nii liggéeyal Serigne Saliou te dama koy ndamoo de ndax 2004 la nu mujj gis Serigne Saliou ca Touba Belal xel koom keroog ba sëriñ bi di tàggoo dani sa law daa metti lool nga miinal nit sa bopp ba nga gënal ko ndeyam gënal ko baayam nga xëy xëy gisatu la ndekete boobu la nuy mujj gis sëriñ Saliou mu ne mbaa kenn rëxuñu booba góore jéey ab safóoram moo ne ci wetam nuy xool ba ni ko góoram mu ne nanu may booba donga yi képp ak sëriñ bi keroog ba muy génn ndekete bis boobee muy génn daara ji di xool donga yi bëti yërmandeem joojee rangooñam yooyee di dal ci ab dënn mooy bis bi mu mujj a teganteeg ñoom ci àdduna keroog aboogay jëwri ni Cees dañu bëreet ci mbooloo mi ni ko mbàkke waaye waaye noonu kon yàlla bu nu xam sa njariñ ndax booba xam na ni sëriñ Saaliw kat bu demee yërmande yàlla ji dana jafe lool mbokk yi nanu wax jafe sëriñ tubaa Cheikh Mouhamadoul Amine Baara mii sa maam nag ci li sëriñ tubaa bëggoon rekk la nekk Cheikh Mouhamadoul Amine ku muy sa maam nii rekk nga mën a mel boo xoolee sëñ Abdou Aziz Baara xool sëñ ay sa Baara nga xool njabootug sëriñ Baara gi nii nu tegaloo ak ni ñu demee xoola Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke mi fi jóge barki démb moom mi sëñ Sidi Mokhtar a ko woolu ba mu ñëw bég ci ab liggéeyam lu baree baree bari lu nit ñi umpule lu sëñ Sidi Mokhtar daan bëgg moo koy defal màkkatal mukarrama ku ne xam na ni sëñ tubaab bi mu bëggee waaj ba dem màkka ndax bëggoon ku mu bëgg Rasulaay billaahi barke sëriñ Saali wa xel koom bu sëriñ Tuubaa demoon Medinatul Munawwara du delsi mu ni Mbàkke Buso damaa bëgg nga waaj gunge ma damay siyaare ji sama sang ba Rasulullaay waaye keroog kan la woolu waajuru sëñ Fallu borom yaa faadilan faddlahul xalaaxu yaaman bihi faaraxani imlaaxu sëñ Fallu ma nga xam ni ca la sëñ Tubaa wax ni kazu rajab aslaha kulliyat yi ci weeru rajab ci la sama lépp baax gars yi def leen nii ñu màggal sëñ Tubaa waay waaw damay tënk rek ndax waxtu wi barke Seexul Xadim dégg keroog bi mu wooloo soxnaa bu sa ne ko damay waaj a ji sama sang ba damaa bëgg nga defaral ma cere ju baax waaye ak sanqal te awal loo bëgg nanga ko ci fas moo tax jigéen ñi war a góorlu ku ne Europe te nekk ak sa borom kër na nga góorlu te xam ne la mag ñi daan mayee ngi fi sunu jur a ngi nii bay Baye si la te bëgguma bu yëkkatee kàddu ba noppi ma yëkkati ko ndax moom dama koy seetaan ci internet bi mu mu di ma dooleel ndax nun nuy ndaw di waxtaane sëñ Tuubaa ak di jàng xasida bu nu gisee kilifa gu nuy dooleel dañuy bëgg ndax ñii fi nekk di xeex ak mbon sax président yaa ngi jug di leen di maanaam di leen teg ay sanctions kon ñun ñi bëgg sëñ tubaa di ci dox bu nu gisee mag moo xam ne dana danañu jëlal di nu kaasal suñu xool day sedd sunu fierté nga barki seexul xaddim soxna Awa Bousso bi ko sëñ Fallu ne damaa bëgg bi ko sëñ Tuubaa ne damaa bëgg nga defaral ma sànqal te loo bëgg na ko ci fas daa dem toppatoo cere ju lew dugub ju lew toppatoo ko ba mu doon sànqal def ko cere ju baax mu ñëw tegal ko ko mu ne ko ak ah, saa awa mbaa nga ci mu ne ko mbàkke man day fësagu ma ndax xaw ma ba xam mel na ni nga bëggam déet déggal loolu sëñ Fallu maanaam sëñ Tubaa di xool ba yàgg mu ne ko xàkk saa awa nii rek laa ko bëggee woon déggal ñaan nga maa ngi ñaan loo bëgg yow sama sang bu baax bii ba di ko wuti loola yàlla na la fekk si sëñ Tubaa daan ah ngant am na ndax nee naa ko loo bëgg sama boroom def ko te nee na lu ma bëgg na ma fekk si te rasulaay rek laa bëgg mu daal ni kataballaahu tabaaraka wa taala anna baytillaahil tarfahul malaayikatu ilaa tuuba wa fii rasulullahi daan ni nag kon sama ngant dam na ci sama yaram ba mënumaa siyaare ji sama sang ba wax wala si ayqa jismi an ziyaaratihi waaye lakki lisami lowokal xal bi zawaaru bis boo demee ca barab ba da nga fekk sama làmmiñ wi di jooru maanaam di tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon mbàkke yàlla na yàlla yàggal taxawaay bi sëñ Basiru jaawartulaaha bii ñu tuddee jataay bi ñun ñi fi teew moom suñu laissez-passer leer na naññi dama sëñ tubaa bi mu bindee jaawartu ba pare dañuy laisser passer la mbakke ngay doomi sëriñ xaadim aw ba sëñ xaadim aw ba sëñ baara sëñ baara sëñ tubaa waa léegi mu tuddaat jaawartu laa kon kay sunu laisser passer dagan na gis nga bis bi jar na jóge ba États-Unis fu ne ci àdduna bi teew si ko ngir laisser passer la te la ci la sëñ Tuubaa wax ne illa yaqaadallaahu maalam yëkku ni wala yëkkunu abadan li mumkini gaa yi gis nga sëñ Tuubaa mi doon daw ci waaxu Moussa Siri sëñ Moussa Kanaan gaal gaa woy booma ba wëy bu yaama ca côté waxi ma tëddeeg bu yaama kon nga français lu wa ngaak bul yaar borom tubaa romb na leen bu yàgg moo doy waar maa ngi siyaare sëtub Cheikh Ibra Fall bii toog sëñ Basiiru Fall alxuraan damaa ànd ak sëñ xaadim kebe mu jàng xasida ba pare mu daal di sekkar mu ne ko xaadim yaa moos nees di jariñoo ci sëñ tubaa te jaroo ci Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall benn xisa rek laa ciy wax ndax moom sëñ saaliw da koo bëggoon ba ku miin dongay s saaliw yi wala nga miin sëñ saaliw ku wedd nga laaj Serigne Béthio Thioune jàmbaar ja moom day sëriñ Touba sëriñ Saliou nee na ko yow day dama bëgg nga xam ne fu nuy waxtaane bàyyi Cheikh Ibra Fall na ni tekk mu mel na ci yow ne Serigne Touba la ñuy waxtaanee barke Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ibra Fall moom Serigne Touba da ko daa bëggoon Serigne Touba ba xeetuk Serigne Touba fu ne da koy xeeñ Cheikh Ibra toog ba yàgg mu ni hee doom xeetuk Serigne Bamba damay xeeñ de. mag ñi daan ni bëreet ku ne daw duggub roq nu daal di seen poussière bu bari nu ne ko seen nan poussière buy ñëw de waaye xamaguñu ko mu mbooloo ma di wéy jataay ba di wéy ba yàgg mu ne hé Ibrahima Thiam mu ne ko naam mu ne ko yërndu leen mag ñi di bëreet ku na daw ba yàgg kenn ñëw ni ko daa mel ne day mbooloo même seen ka ca digg ba yor faso xacc bu weex daa mel ne sëñ Fallou doomi sëñ Bamba Dia keroog Cheikh Ibra dani ah doom wàcc leen toogu yi tefat naanu yi sëñ Bamba ngi ñëw keroog bi mu nee cekk Seex Ibra daa jël dàll yi dugal ci poqutaanam ni këpp leen tànk bi ma dem ci biir billaahi wallaahi kenn du maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridine keroog bi mu génnee dañu xëy doom kuppi leen tànk bi ñu kuppi ko mu ni sama borom xamal na ma ni ku ne ci tund wi nan ko woo mu teg bëtam ci tànk bii ndax ku ci teg sa bët doo dem sawara daal ni waaye xamee naa ci ni bis bu doomi borom tubaa noppee am doomam a njëkk doon borom tubaa muy alaaji baara alaaji baara moomee sëñ baara samaam la ko sëñ Fallu tudde keroog ba mu ko ko tuddee sëñ baara daa dem ba yàgg mu ñëw ni ko sëñ Fallou de sama sa maanaam sama ndénkaan la laay jël si muy alaaji baara mi mu ko tuddee woon alaaji baara ko nettali nee na keroog la ma ko sëñ Fallou jox mu yóbbu ma nee na ba ma demee ca daara ja ba mu xam ne moom sëñ baara mi ngi fi waaja jóge damaa fekkaat ca daara ja ni ma ah yow de laa doon seet si ndax damay waaja dem tukki bu sori tukki boo xam ne duma gaaw a ñibbisi moo tax ma bëggoon laa tegaat ba bala maa wàññi ko kon ki am te kenn amu ko nanu ko xam muy Cheikh Ahmadou Bamba Serigne Saliou Mbacke bëggoon na ko bëgg koo xam ne dawul jaar ci aw turam boo xoolee sëñ Massamba Diop Samb keroog bi mu njëkkee gis sëñ Touba moom dañu ko jàkk rek sëñ Touba neex ko te jëflanteegunu dara mu daal di dellu Kajoor bi mu nuyoog sëñ Touba sëñ Touba ne ko foofee te mu ne ko maa ngi fii ci Kajoor sëñ Massamba Diop Samb nga xam ni moom dayoom kenn xamul lan la. keroog bi mu nuyoog sëñ Touba daa dellu Kajoor ni daan ni bàyyam man de damaa gis koo xam ni damaa neex loolu jëmm ja te damaa bëgg a nekk ak moom. sëñ tubaa ku mas a taxoog moom te am wilaaye ci yàlla booy dem ci sëñ tubaa doo ko tey ndax leer yàlla xëcc xoola sëñ isaa jenn la mu waxoon sëñ daru asan njaay li ko indi ci sëñ tubaa mag ñooñu sëñ ahmadou jaw paxa sëñ masamba jóob saam keroog bi mu demee ba jëflanteeg borom tubaa booba daa fekk maanaam dongay sëñ mor anta yi dañ daan daggal sëñ aw sas di am seen sasu bopp sëñ Masamba Diop Sam nee na danoo toog jëwri ni daara ji daan ni koo xam ne day reer nga ci reer bi tey bu subaa danga bay saw sas ku bayul saw sas tey itam maa ngi ñaan ku bayul saw sas tey itam bu subaa boo añee boo reeree tey bu subaa doo añ mu ni ma Samba Diop ndax xam nga ko moom wax ji mu ni ko xanaa man mii gan tey doog a ñëw mu ni ko déedéet man mii damaa leen tax di wax sëñ ma Samba Diop saam ni ko bu subaa danaa bay sama sas bayaale la saw sas sëñ ma Samba Diop saam nee na keroog damaa xëy ne ci tool yi bay sama sas bay sasu borom bot eh, borom tubaa nee na bi may wàññi ko fekk ñu añ ba dëpp bool yi nee na sëñ tubaa ca buntu kër ba la ma dogaale ni ma Masamba Jóob ma ne ko Mbàkke ma mbaa añ giñ la mbaa añ giñ añ bàyyi la doo la naqari ma ne ko déedéet Mbàkke ndax man yow rek laa bëgg mu ne ko yow man xiyaam bu ñu fa demee da xam ne maa amub añ te ku ma añal da añ man maay Ahmadul Xadim yal na nu yàlla dimbale te taxawunu ci doole Cheikh Mouhamadoul Amine Mbàkke taxawaay bii ngay taxaw ci réew mi maa ngi ñaan ci doole sa maam yal na la yàlla kàttanal Cheikh Abdoul Aziz sunub saga képp kum gis ngay nox noxi lii mu seede ci sëñ Mbay Géey Sylla dégg nga ci biir wax ji mu ni booba moom xamante wuñ mbàkke kon loolu ñàkk ki ñaan la waaye nag ku sëriñ xaadim aw ba di sa wayjuru sëriñ baara di sa maam nii rek nga mën a mel nii mu koy defee France noonu la koy defee Italie ak mboolem ci àdduna bi kon jóge gii ñu jóge Italie ñëw nun suñu tawféex di fasante kóllëre nag ak waa laissez-passer yii muy waa jaawartu laa laissez-passer laa leen tuddee kon nag yàlla yàlla mottali kóllëre gi yàlla na yàlla dëgëral ñu ku fi nga wax Cheikh Abdoul Aziz Mbacke yàlla na fi yàgg te Cheikh Abdoul Aziz Mbacke yàlla na fi yàgg ci wér yàlla na nu yàlla wane la waat ci jàmm Mbacke yàlla yàlla yàggal taxawaay bi bég nañu sëñ biraan sunu xool sedd na wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. jëf jërëjëf tur bi nu mu tudd